del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information cant gërëm ñeen na leen yéen ñi safoo seetaan Feeling Dakar TV li gën a fës si yéene kaay yi ginnaaw ndaje bu mu doog amal ak ñi nga xam ne nag ñooy xale waa patriote euh, ki di président Ousmane Sonko nag yëkkati na ay kàddu jëmale ci président Macky Sall ba tax na rek dinañu wax tamit ci li nga xam ne moom la ñu nemmeeku woon démb si digganteeg ki nga xam ne nag mooy Guy Marius Sagna ginnaaw bu ñu ko dalalee fële ci grand jury mu yëkkatiwaat nag ay kàddu waat ci li nga xam ne nag mooy boobu boobule agression mu amoon fële si Nianing dinañu wax tamit ci xeex yi ñu nemmeeku euh, ci biir euh, APR ginnaaw bi ñu gisee woon nag ay bés yu ñu génn mu euh, métti woon trop ci boobu boobule parti indi leen point Covid 19 bu bés bi tëjee flash bi tàggat yaram ngeen taaxirlu ma xam fàcceel leen di gën a fës si yéenekaay yi. site bi lay jox information yu leer. comme ni ma ko waxee si benn xibaar yi dañuy ñëw rek ci ndaje bi amoon na samedi fële ci Tambacounda ginnaaw nag bu ñu dalalee woon ki nga xam ne mooy président Ousmane Sonko ndaw yi faree ci parti boobu di Pastef les patriotes ñoom nag jot nañu génne seen feuille de route nan la ñu nar a doxalee nag li nga xam ne nag mooy ay bés yi di ñëw euh, ba élection gox-goxaat yi ak élection présidentielle yi ñu am si ab taxawaay bu euh, dégg dayoo ba tax na rek li nga xam ne nag mooy cadre bi nga xam ne euh, kii di président Ousmane Sonko jot na ko fa yëkkati bu ñu ko joxee kàddu moom rafet rafetlu na boobule ndaje ba tax na rek moo ngi woon sànni xeer ki nga xam ne nag mooy njiitu réew mi di président Macky Sall ginnaaw bu muy ñëw nag ci yoon bi dafa gisoon ab xeex boo xam ne ñi nga xam ne nag ñoo fare ci APR gune yooyee ñoom ñoo ko amal ab ndaje mu jeexee ci ab coow ci noonee nag kii di président Ousmane Sonko moom moo ngi xamleel ki nga xam ne nag mooy président Macky Sall moom ay ndawam dañu réglé comme nuñ koy faral di gisee ñi nga xam ne nag ñoom la ñuy sànni xeer ci réseaux sociaux yi ba tax na rek nekk kii di euh, président Ousmane Sonko moo ngi xam leen nag ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir partem boobee ñu xam ne ñoom ay euh, famille la ñu nekk nekk ñu parti boo xam ne nag dañuy xiiroo euh, ŋaayoo comme ni ñu koy faral di gisee ci APR ba tax na rek nee na li nga xam ne nag mooy seen mbébét gis nañu ki nga xam ne nag soo ñëwee rek ci bopp nguur gi dañuy am ay enjeux yi nga xam ne day dem ci wàllum koppar moom nag moo ngi leen di teel dànkaafu di xam le nag ku nekk ci parti parti patriote euh, Pastef bi nga xam ne nag moo ko jiite su nekkee euh, nguur ak dërëm bala position moo tax nga ñëw euh, bu yeboo nga ndaw jël say tànk daw si nu mu gaawee ba tax na rek moom du am benn koppar bi nga xam ne dañ koy pasas pasare koppar bi nga xam ne nag les contribuables ñoo ko moom kàddu yooyu nag le président Ousmane Sonko yëkkatee ginnaaw nag buñ ko dalalee fële ci Tambacounda ñu wax ci Guy Marius Sagna ginnaaw nag démb buñ ko dalalee fële ci i rajo si grand jury moom nag ñu war na ci li nga xam ne moom la amoon agression bi nga xam ne nag jotoon nañ ko ko teg ay bés ñu génn fële si euh, ñaning ci noonee nag euh, mu jàpp kii di euh, jiitu réew mi ak ay ñoñam ñoom nag fan yi ñu génn maanaam si coowlu Ousmane Sonko ak Adji Sarr génn bi askan bi génn ba léegi moom la ñu mënul euh, supporter ba tax na rek jamono yi si ab vengeance bu métti la ñu nekkee jëmale ci ñi nga xam ne nag ñoo faree ci gujjëg politique bi ak ñi nga xam ne nag ñoom ay activiste lañu comme Guy Marius Sagna ba tax na rek Guy Marius Sagna ñëwaat na ci li nga xam ne moom mooy taxawaayam ci biir euh, ak ak yelleef yi nga xam ne nag moo koy amal fii ci réew mi ba tax na rek ñëwaat na tamit àddu ci li nga xam ne mooy découpage régional bi ñu nar a def euh, ci Dakar Dakar mu gis ne boobu la décision ab décision politique la kii di njiitu réew mi da ko bëgg a def euh, ngir euh, faagaagal ñi nga xam ne ñooy ay adversaire am politique ba tax na rek euh, ñu jamono ñuy wax ak yéen nii ñi nga xam ne nag ñooy waa FRAPP si altine bi fukki waxtu bu mu jotee nag jot nañu déposer ab lettre pour dàq li nga xam ne nag mooy place publique yi nga xam ne dañoo jàpp ne place yi jëmmal jiitu réew mi di France la ba tax na rek ñoom dinañu dugal boobule foofu ci préfet préfecture préfecture bu Dakar ñuy waxaat rek ci ki nga xam ne nag mooy Guy Marius Sagna boobu nag ñu gis li nga xam ne moom lay wëyal euh, di def ci réew mi euh, mu ñëwaat comme ni ma ko waxee euh, sànq ci biir xibaar yi taxawaay bi nga xam ne nag taxaw na ko fële ci li nga xam ne moo fa nekkoon ab litige foncier ba ñu jotoon ko ci agressé tax moom nee na agression boobu nag du tee mu continuer di wëyal ci li nga xam ne nag moom la nekk ba tax na rek ñëwaat na ci li nga xam ne tamit mooy manifestation yu fi amoon ba tax na rek dañuy wax ci yooyu lee yëngu-yëngu yëngu-yooyu yëngu-yëngu yooyu nag ñu nemmee ko ci euh, gujjëk politique bi nemmeeku nañ ko tamit ci parti bi nga xam ne nag mooy APR te ki nga xam ne di président Macky soo son excellence jiite ko ñu gis li nga xam ne nag mooy duel yu am si diggante ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ay ténor ñu gisoon fi ay bés ñu génn kii di Amadou Ba ak Abdoulaye Diouf saax positionnement bu amoon si seen diggante ngir wuutu ki nga xam ne mooy mairesse bu Dakar samedi bu ñu génn nag ab ndaje la amaloon si ñi nga xam ne nag ñooy jigéenu APR ci noonee nag ki nga xam ne mooy Amadou Ba nekkoon fi euh, ex ministre bu finance yoroon tamit li nga xam ne mooy euh, affaires étrangères gis nañu nag ay bés yi nag positionnement bi mu am fële ci parcelle ñu gis nag si ndaje boobee euh, kii di Mbaye Ndiaye Mbaye Ndiaye tamit nekk koo xam ne dafa jege njiitu réew mi bu mu jëlee kàddu nag ab clashante la gis moom ak jigéen digganteem ak Amadou Ba ginnaaw nag bu mu fàttalee rek ñi nga xam ne nag ñoo faree Parcelles Assainies nii waxul woon ñu euh, jàppale ki nga xam ne mooy Amadou Ba mais dafa ne woon rek euh, ñu gunge ko ngir dooleel ki nga xam ne nag mooy président Macky Sall foofu ci Parcelles Assainies mu dolli si waat li nga xam ne nag mooy euh, perspective yi nga xam ne gis nañ ko ci Amadou Ba moom nag dafa njott rek ki nga xam ne nag mooy Amadou Ba dafa am ñu ko ngemb ngir mu yóotu li nga xam ne nag mooy chaise président Macky Sall ba tax na rek loolu mu jural ko ay ñagas ñagas si seen diggante moom nag moo ngi araftu ki nga xam ne nag mooy Amadou Ba su nekkee nag uh, bëtam bi da ko teg uh, ci li nga xam ne mooy uh, place su mu wàccee ko ginnaaw nag bu mu gisee dafa am ñi nga xam ne nag ay hypocrite la ñu nekk ci alentour Amadou Ba di ko jay ci noonee nag yëf yi yemu fa bi Amadou Ba jëlee kàddu nag ci ndaje boobee tontu nag ki nga xam ne nag mooy kii di Mbaye njaay di ko xamal na moom xam na fu muy teg tànkam ba tax na rek warul koo bañal li nga xam ne nag mooy ambition yu mu am ci biir parti président Macky Sall ba tax na rek kii di Amadou Ba nag moo ngi fàttalik rek kii di Mbaye Ndiaye euh, ginnaaw bu mu xamee moom jege ko bu mu ko nga xam ne mooy dirante mbagg bu mu am ak euh, seen diggante fële ci Parcelles Assainies euh, yooyu nag ko jibal fële li nga xam ne nag mooy samedi bu ñu génn ci ndaje bi nga xam ne jigéenu APR yi ñoo ko goog woote pour dooleel li nga xam ne nag mooy seen parti boobee ñu wax nag ci ki nga xam ne nag mooy Modou Amar Modou Amar nag ab jet setteur la ginnaaw noonee nag ñu gis ne dafa sàcc ab oto si sàcc oto boobee nag ñu gis ne ci PV yi mu tuumal ki nga xam ne nag mooy uh, Wally Ballago Seck ci noonee nag du uh, gulet ñuy tudd ki nga xam ne nag mooy faramaneen boobu uh, ci wàllum sàcc oto kii di nag Modou Amar jamono yi ñuy wax yéen ni nag jot nañ ko déglu ba dëggal na nag boobu la sàcc ginnaaw nag bu ko jëlee ci ki nga xam ne nag mooy patron wam di wuyoo si turu SMK Gueye moom nag jamono yi ñuy wax ak yéen boobu la Ford mu ngi toll ci 72 euh, millions mais bu mu ko jaayee nag ki nga xam ne nag mooy Wadi sekk 6 euh, million francs CFA la ko ko jaayee ci noonee nag euh, jotuñu déglu ki nga xam ne nag mooy Wally Ballago Seck mais ki nga xam ne nag mooy jet setteur bi di du Amar jamono yi ñuy wax ak yéen nii nag jot nañ ko def mandaa de dépôt ajjuma bu ñu génn ba tax na rek lu ci mënti am tamit dinañ ko indi si suñu yeneen jotaay yu xibaar leneen lu ñuy indi tamit si suñu yeneen jotaay yu xibaar dina bokk médicament bi nga xam ne takku fële ñu teg loxo nag kër ayib kër ayib nekk fële ci Kaolack ndangaan ci noonee nag ñi nga xam ne ñoo yor lépp lu dem ci wàllum brigade commerciale jëmale ci wàllum douane kër kër ayib ñoom nag jot nañu teg lu toll ci euh, ay médicament yoo xam ne suñ ko saytoo alal bi ngi toll euh, ci 1 milliard 564 millions 178 740 francs si suñu koppar ñu jàpp si rek euh, li nga xam ne mooy 649 000 kilogrammes yoo xam ne ay comprimé moo ko fit pure la ba tax na rek euh, boobu boobule morphine nag li nga xam ne mooy koppar bi jotu jotuñu ko saytu ba tax na rek jamono ñuy wax ak yéen yooyu le médicament ñoo ko làkkoon ci li nga xam ne mooy ab camion boo xam ne ab jën lañ ci defoon li nga xam ne nag mooy camion boobee moo ngi jóge woon fële ci euh, Gambie li nga xam ne nag mooy brigade commercial bu duwaanu Kër a Ayib teg na ko loxo ajjuma bi ñu génn ba tax na rek dinañ leen ko toppal lu ci euh, beesandi rek ñu indi ko si si ñeneen jotaayu xibaar ñu indi leen li nga xam ne mooy point Covid 19 bu bés bi bu ñu jëlee fële ci ministère de la santé et de l' action sociale euh, sur euh, 39 tests réalisés 29 ñoo ñëwee am li di euh, mbas bi di Covid 19 12 cas contact la ñu nemmeeku 10 cas transmission communautaire la ñu am 26 patients jamono yi ñuy wax ak yéen wér nañu ba ñibbi nañu seen kër 12 cas grave la ñu am démb nag ci dimanche benn euh, bakkan na rote ci mbas bile 40 714 ñoom la ñu jot a déclaré positif 39 410 ñoom nag jot nañu wër ci mbas cent 1120 bi mbas bi duggee ci réew ba léegi. ñoo si jot a euh, faatu 183 euh, jamono ñuy wax ak ni nag ñoom ñoo nekk sous euh, traitement ba tax na rek bi campagne de vaccination bi dooree ci réew mi ba léegi car 427 377 jot nañu bénéficié wu ci li nga xam ne nag mooy joolile dose ñu leen di fàttali rek internetu Feeling Dakar li nga xam ne mooy mbas bi di Covid 19 ngi si réew mi ngeen di saarloo mesure barrière yi ñu jëlee fële ci ministère de la santé et de l' sociale. ñu jeexale flash bi tàggat yaram ñëw ci li nga xam ne mooy Ligue des champions finale bi nga xam ne nag dina am ci diggante euh, Manchester City ak euh, Chelsea euh, ginnaaw nag bu ñu ko naroon amalee fële ci Istanbul suñu sàgganee nag dinañ ko yóbbu fële ci Londres. ñu jeexalee li nga xam ne mooy tàggat yaram résultat yi ñu nemmeeku démb si dimanche bi si. Euh, Ligue 1 quinzième journée bi nga xam ne euh, kii di euh, Jaraaf ak Dakar sacré jot nañu laale 1-1 le match bi jeexe Stade de Mbour Génération de Foot Stade de Mbour dóor Génération de Foot 1-0 Gorée dóor AS Pikine dóor Gorée li nga xam ne nag mooy Diambour ak Casa Sport ñoom dañu samp nul 1-1 la match bi jeexee Tëngéej FC ak Seneps nag Tëngéej dóor na ko benn bal ci dara ASC Douane ak